mbokki téléspectateurs yi RTT TV ñoo ngi leen di nuyu fii ci site internet bi nga xamante ni mooy RTT TV tey nag euh, yéen mbokki cees dañuy ñëw fii tey ci écrit bu mag boo nga xamante ni mooy écrit bëgg sa wéyjur mu mel ni tey dañu am bis boo nga xamante ni bu ñuy waaj la wula sax ay bis parce que ci tout tànk yi am na ñoo xam ni suba ñi ngi war a bëri ji ginnaaw suba ci journée bi nga xamante ni mooy le 9 di combat Serigne Cheikh Niang yi mais nag également su ngeen ko bàyyee xel aussi ki nga xamante ni mooy ambulance di tête de file bi moom it dafa war a génn dem fi nga xamante ni mooy ndakaaru war fa jongante ak armee muy combat bo nga xamante ni am na ñu koy tuddee revance mais am na ñoo xamante ni combat de la clarification lañ koy tuddee mooy que ni revanche amul ci côté ambulance nee na parce que ni ma ko dégg mu wax ko moom dafa wax ni xale du may moromam revanche kon su nangoo bëreewaat ak moom c'est parce que dafa d'accord moom daf ko daanoon. mais ki nga xamante ne mooy armée aussi moom ni moom euh, moom moom la ñu jox ndam ndam lañ ko jox mooy ndam loo xamante ni par recours la ko amee. ambulance aussi nee na moom bu jógee di bëriwaat ak armée nangoo bëri ji du revanche lay bëri ji mais day dem pour leeral parce que dañ ko xañ victoire boo xamante ni moom moo ko moomoon. donc loolu nag moo tax ñu topp champion boobu ñëw tey xool ko fi mu làqati ci ruqam pour bëgg waxtaan ak moom ci naka lay waajee ak naka lay jógee mais nag ci bis daf ciy am rakam joo xam ne daf koy gunge. rakkam jooju defe naa ne kenn dootu ko laajte moom it ci biir Thiès rakk jooju mooy cere càq moo tax tey ñu ñëw fii comme am na heure yoo xam ne dañu nekk ci liggéey ñu xaar ba entraînement bi tas ñu ñëw nag eggale ko mën a waxtaan ak moom ci nu muy waaje pour le 16 janvier war dem fee nga xamante ne mooy stade Iba Iba Mar Diop mbokk mi ñu nuyu la asalaamaaleykum. waaw onze bilaay a seetaan rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur sant gars yi nga xam ñoo nekk ñun entraînement fii ay sunu te de euh, sunu ay dara ak Mambay gaa yi fii ñoom ñëpp ay ñoom tàggat ñoom ñëpp gaa yi ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di bëggee yëpp wér barke Sëñ Tuuba. ambulance ngay jëm ci bis bu mag boo nga xamante ni da nga bëri woon ak moom le premier janvier 2017 tey ngeen war a bëreewaat le 16 janvier ci stade Iba Mar jot ci même stade bi ngeen bëree woon nga daan ko ci biir stade bi mais de quelques jours wala deux mois après ñu def recours xaj la sa ndam tey nga war a dem di jàkkaarloo waat ak moom nan ngay waaje waaw maa ngi wàcc si tous les plans maa ngi wàcc fépp fépp maa ngi koy wàcc maa ngi wàcc ci xeex bi maa ngi wàcc ci contact bi maa ngi wàcc ñëpp ànd ak samay mbokk nag di ànd ak samay mbokk bu baax non combat bi boo gisee ñu naan ay da ngay jëliwaat sa euh, da ngay amee dafa laa daan ay da laa def da laa daan nga jëliwaat sa revanche ak yooyu loolu man gëwuma ko nit bu xale boo dee daan dangay ngay daan si digg ba isaan dégg man verdict bi si biir lañ ma ko joxee isaan dégg ma jël sama verdict yóbbu ko yóbbu ko ba ay weer ñu naan daa def recours ak yooyu man ma loolu armée xamal na la xale du may revanche Pambay fii lay leeree isaan dégg man loolu laa gëm xale du may revanche nee na revanche may incha allah su kàttanu yàlla dinaa la jàpp dinaa la duma naa la daan nan nga fas waaje ak euh, population wu Thiès muy autorité yi kilifa yi nekk ci dëkk bi bari na ay mbër yu génn des fois rafle woon ku leen jàppale ñuy xaw a néew doole combat boo xam ne depuis daaw lañ ko jëloon donc nga war a woo ñi nga xamante ni mooy kilifa yi ne ci dëkk bi yëpp daal ñëpp loxo pour ñu teg la loxo jàppale leen yow ak sa rak ngeen dem ak mbër yi nga xamante ni yëpp ñooy wari ci bis boobu jógee Thiès di dem ban message ngay lancer autorité yi pour woote ñoom ñëpp ñu teg la loxo jàppale leen jëndal leen ay billets utal leen ay kaar ngeen mën dem bëri ji jëli ndam la indiwaat ko fii ci ban message nga leen di. li ma ciy wax bëriwul meeru si la lañ fi teg si la maa ngi lay jàllale ma maa bëgg nga jàllale ma lii message bi yow lañ jël teg ko sa loxo ba tuuti tànk ba si si tànk ba si ndaw. ba si maire bi si gën a ndaw awma kenn ku may tudd naan la lii ak lii parce que koo tudd ëllëg ñu naan ki tudd ma kii kii si yow laa ko jàllale. nañu gaa yi ñëpp jàppale. si dégg parce que koo fi fii Thiès moo moo doy waar es dafa xóot parce que nit ngay dem si euh, mu dégg la dootu jàppale ti mais yow ñu ngi lay wax ni nga jàllale ñu message bi nga woo sa gars yëpp politiciens yëpp seen yi dégg ñun amuñu kenn ku dul waa li may wax waa nag yombul nañ ñëw yëngal si kaw ma gësam si suuf incha allah na ma ko daan defee rek man laa gëm nañ si kaw ma gësam si suuf armée bu fekkoon ala euh, bëriwuñu sax armée dama ko xam yàlla xam na ni armée dama la xam xam si signature bu am nga loo wax may bàyyi ba combat bi jàll ma duma la daan la si kàttanu yàlla dina la wax ni la lii ak lii ak lii la armée daante nañu te ndox du bàyyi yoonam naa la xamal leen ban jour la woon le premier janvier ñuy ñuy mois na woon fa woon rek ndox du bàyyi yoonam dama lay jàpp dama lay duma dama lay daan. ndax ndax mën nañu xaar ambulance bu bees bu bokkul ak ambulance yi nu mu a gis. déggoo bu bees tàq. wóolu ñu maanaam ambulance bañ gisoon bi muy bëree ak ay ngeer. ambulance bi ñu gisoon muy bëree ak luur ñu gis ambulance daan jëli léegi mu dem ba làmbam muy taxaw ñu koy jël si loolu lan la. waaw ba ma demee ba ba xam loolu défaut boobu si man dama jëriwaat samay nit téewaat leen bu baax xeebu ma si kenn. ku ni ma lii ngay def ma dem defi loolu ñama daan àndal laay àndal ba yàlla may ma ndam incha allah si kattanu yàlla déggalu ma la xeebu ma nit waa teekaa nag dénk naa leen combat bi jeune teekaay ñoom ñëpp laa ko dénk paaye fay paaye nodd ak imaam baak ñëpp maa leen tàllal sama loxo ñu ñaanal ma si kattanu yàlla suñu borom voilà lan lañ mën a xaar ci làmb jooju mu doon làmb ju gaaw pour teel a waa Thiès parce que dëkk bi ndam gëj na fi ci champion yi génn di dem ak ñi bari ci dëkk bi ñuy ñaan ci yàlla yi nga xamante ni moo amoon ci dëkk bi yëpp mboolem mbër muy waree ci biir cees di génn ak kuy bari ci dëkk bi ci tête de file yi fi nekk yëpp ci mbër yi mag yi lan nga dox sa diggante ñoom ak lan nga ban message nga leen di wax pour mbër yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ban message ngay lancé ci ñoom sa diggante ak ñoom ak lan lañ lay yabe waa man moom boo déggee mbëri si dëkk bi li fi jot a jàll jàll na ba pare kenn dootul delluwaat ginnaaw dañuy xam ni yàlla suñu borom mooy maye yàlla lii la la may damay gën a continuer sama entraînement gën a téewaat sama bopp. yaa ngi dégg man bëri fii aw kenn xaj ak seen yàlla mooy maye mooy xañee te dama bëgg ngeen xam ni carrément man mbëru Cees yëpp laay woo amul kenn ku ma si bàyyi. Moodu Anta sama mag ba ki si gën a ndaw war na Serigne Touba Mbacke ñoom ñëpp laay woo ma si kenn xaaj ak seen li fi jot a jàll jàll na gars yi xoolal nañu dund làmb barki Serigne Touba Mbacke gars yi si kaw mënuñu ñu de ñu ngi contact ñu ngi def lu lu ñu war a def lépp danañ tàllal suñu loxo yàlla suñu borom mu may ñu ndam te incha allah man gëm naa damay am ndam. mais bi ngay bi ngay dem 2017 euh, Sarak Alaaji moo la gunge mu dem daan fa mbay Balla Gueye champion bu mag. jël bu rëy nga ñëw jaar ci ginnaaw est ce que tey mën nañu xaaraat cere càq ñëw di la ubbil ngeen def la ngeen defa incha allah déggoo li ma la wax ay mbër yu danger rek laa yor te balaa ñu see xam dara booy bi bëree pare cere càq sama raq. kon daal mën nañu xaar. déggoo li ma la wax incha allah fa mu daan jaare alaaj lu mu fa def. daa duma daan fa jël bu rëy. Mhm. noonu la booy bi defaat. man tamit noonu laay fa laay jaaraat damay duma damay daan si kattanu yàlla. jërëjëf kon mbokk yi Thiès yéen a ko déggandoo seen doom moom moo leen di woo comme ni mu ko waxee mi ngi ko commencé ci le premier magistrat de la ville de Thiès muy monsieur Talla Sylla mais amul xàjj ak seen nag ci mboolem koy xamante ni rek kuy takk ndombal tànk nga ko ñëw bi dëkk bi. parce que mbër la moo nga xamante ni ah drapeau wu lay porté moom lay yóbbu nekkul mbërum taaxi kaw. du mbërum gent du ngërum Médina Fall mbërum raison de Thiès la kon dafa jël ay loxoom tàllal ko nee na pour képp koo nga xamante ne rek ku nekk ci biir région de Thiès la pour ñu jàppale xale yi accompagner leen ñu dem uti li nga xamante ne mooy ndam yàlla suñu borom may leen ko ñu ñibbisi li ñu gën a soxla nag wax nañ ko mooy ku leen jàppale ci ay billets jàppale leen ci ay transport car parce que metti na si combat yoo xamante ne depuis bi ko jëlee depuis temps Covid la ba nëgë ni kon mi ngi tàllal ay loxoom mboolem koo nga xamante ne rek ku nekk ci biir dëkk bi nga moo xam ngay dund làmb wala nga dund dundoo ko kon waa Thiès waa Thiès lay tàllal loxo daal moom champion bi di Matane Mbaye ambulance waaye nag ku fóotal mbëtt dangay rocci roccil bar comme ni ñu ko waxee sànq dafa am champion bu mag boo xamante ni moom moo koy gunge muy cere càq ñu bëgg a xam moom it naka lay waaje ak naka lay jóge ak naka lay demee cere càq nuyu nañu. waa père fay nañ la. cere càq ñu ñëw fii yàggul dara waxtaan ak yow ci sa diggante jinjeer gi yàlla dogal nga dem fa la ñu waxoon nga def ko tey ñu jógaat ñëw di waxaat ak yow cere càq nan nga waaje pour dem dakaar ak lan ngay dik askanu Thiès. waa salaamaaleykum du nuyu waa Thiès yëpp du nuyu képp ku yeewoo Thiès ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàcc waa di la ñaanal di saaku ci yéen ñaan di la ñaanal maag ambulance sama mag yi ñu dem dakaar def fa lu weng daal di ñëwaat kon ko mooy mbëtt maay bar bi bu incha allah le 16. waaw damaa dégg sànq nga wax loolu père woo sa footalee mbët da ngay roccil baar léegi man baar bi day ñëw daan jox mbëtt bi daan ñu ñibbi si Thiès yëngal ànd ak suñu mbëtt mbëtt bu mag bi ménage kii bi coach bi ay dara mooy mbëtt bu mag bi waaw. ay dara di ñu bëgg a rey rek man par exemple damay bëgg daw sax xam nga nga nekk mbër di na mbër dafa dafa baax ndax day xam li yoonu yoon bi mu la koy wan. mais moom mi ma gis Prince Sarr day contact mu ngi ñëwaat de mu ngi ñëwaat ku ko dooroon ku nekk xaar ko mu ngi ñëwaat. ah li mu ñu daj dajloo fii de moom bu su nekkaatul moom mu ngi si bëgg a ne la am Dakar ji moom dañuy dem ni ko tàmmee woon rek lañ koy defee dem ma daan ko àll ko ambulance ambulance daan ñu ñibbisiwaat waaw. incha allah waaw supporters yi moom damay leen wax non violence ndax ñun ñi xamuñu yàq ñoom bu ñu yàq. nañ ñëw dajaloo ñu yëngalandoo ñuy jugee Thiès daal ñëpp départandoo ñu dem dakaar ñu bokk benn fu ñu nekk ñu defal lu rafet ba buñ fa jógee ñu ni waa Thiès liñ fa def ñu yàlla defal ñu jàmm daal ñu am jàmm ak wér gi yaram ak suñu adversaire bu ñu demee foofu yàlla may ñu ndam ndam moom incha allah rabi moom dinaa ko ibil mu jël moom it mu jeex tàgg incha allah. mais nag ngeen koy defee noonu la ko booy jaxaawit seen doom day comme yéen a bokk dëkk bi ci même jour bi yéen ay warandoo. moom it mu jëm fi nga xamante ni mooy arène nationale moom it lan ngeen koy ñaanal. waaw boo jaxaaw moom ak ñun benn la rek boo ne ambulance ni ci la càq ni boo jaxaaw dem ci Modou Anta ñun ñëpp Thiès benn lañ kuy génn ku nekk da ngay dem drapeau Thiès ngay demee waaw di ko ñaanal moom it mu am wér gu yaram am ndam. ndam yi nekk ñetti ndam ñu jëlee ko Dakar ndax dégg naa booy ni ma nee nañ boo bëree ba pare day ñëwaat fekk ñu si ba kon loolu dina neex ndax bu ñu duggee Dakar rek waxuma la ambulance ambulance bu Baara Mbaye jaar ci la ceebu jën jaar fii lool lu ne la waaw non loolu dafa garaaw ñooñ ñi liñ tëgg xamuñu ko sax liñ tëgg xamuñu ko bisu làmb ja lañ koy xam bisu làmb bu ñu jugee waaw di woo ñëpp di woo ñëpp di woo man ñoom maas joob laay woo Cheikh Ndoy man ñi ma am bariwul te dañ ciy jàpp ba ma yëg ko maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax ak Modou Pël mi nekk si yëngal bi rond-point Mourou Yàpp di woo ñoom Laay Njaay tonton Malick Malick Lom di woo ngent ñëpp Tàndumbe ginnaaw Agapes di woo képp kuy bëggee Cere Caac di jàppale Cere Caac maa ngi lay woo ndax bu ma limee juum ndax bu ma limee fii ba suba du ma fi jóge kon maanaam ku dégg sa tur jàppal ni boo ma la rombee ngeen ma dégguma la jàppal naa wax foofu noonu ko boole naa la si ñu demandoo carré nañ ñu jàppale si carré carré cinquante mille cinquante mille dafa métti si mbër mu ndaw te ay bee lañ ñu jox mbër mu mag bi ay bee lañ ko jox kon nañ ñu jàppale ñoom ñoo ñu mën a jàppale dinañ ñu bee jën lu ñu ay car regroupement yi nañ ñu ko bàyyi ñun ñun dinañ ko gérer amul problème waaw loolu daal laay wax daal waa Thiès gi yëpp daal. Amina dernier kàddu pour autorité yi ngay woo wala am di jàmm yi wala ñan ngay woo ci sax waaw man am na ñoo xam ne sax ñu ngi may jàppale suuf mais bëgguñu ma tudd seen tur. si dégg parce ñooñu ay kilifa lañu parce que dañ koy def ngir yàlla tax moo tax bëgguñu ma tudd seen tur mais. waaw maa leen sant bu baax nag sant naa leen bu baax. Hmm. waaw am mooy ñooñu am na nga xam ne sama yaay lañu am na nga xam ne sama sama papa lañu am na nga xam ni samay mag lañu daal. Hmm. waaw waaw non mbër loolu si la bokk kenn ngi si dara wallu mbër moo doy waar daal waaw mbokk yi kon euh, defe naa ni comme mbëtt yu ndaw yi jàll na mbëtt mbëtt mu mag mi lañuy ñuy jàkkaarloo mbëtt mbëtt mag mi nan nga nan nga waajale xale yi salaamaaleykum ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonant bi duñ def lu sant suñu ñaari waajur di gërëm ñu fi teew ñëpp di leen gërëm yéen di di rafetlu télé bi fi ñëw. muy RTT TV di regroupement des de la région de Thiès. waaw di regroupement tailleurs de la région de Thiès. muy télé kon macha allah yàlla na doon télé bu mag a mag a mag mag mag dem ba doon télé ay télé télé. Mhm. di nuy ñu fi teew lu mel ne ay ñoom euh, mbaw mi jóge ba njaxate ñoom ambulance ak yéen ñëpp di leen nuy ñoom ñu fi teew ñëpp. mais ay dara nan la ñuy gisee mbër mu bëre bàyyi bëre wala mu nopp lu ñëw. accompagner ay rakkam ak ñi mu doon bëree ndool nekk ci seen biir nan nga mën a nekkee noonu ci seen biir yow. waaw c'est que làmb dafa doon loo xam ne mënoo see nekk ba pare ba ko làmb deret la quoi te xës na jaxasoog sunu sunu sunu deret ba pare mënuñu koo bàyyi moo tax munu bu nu xësee xëy na nu bàyyi nañu takk ngemb mais bàyyiwuñu bëre moo tax dañuy mujj obligé retourné waat di jàppale suñuy rak ak suñuy mag ci li nu xam lu ndaw moo tax ñu ñëw nekk ci équipe bi di di leen gunge di leen xelal di si def suñu doole di si def suñu yitte di bàyyi suñu liggéey di fi ñëw waaw parce que dafa am ay boo yoo xam tamit bari na ñoo xam ne dañ ñoo déggal mhm. moo waral ñuy bàyyi suñu yitte di ñëw di leen sàqul suñu xam-xam luñ si am lu as néew si man ak dag mais ñu gis loo xam ne yombul ñu gis ko ci écrit muy écrit boo xam ni soo ñëwee danga nga fay fekk plusieurs entraîneurs te ñoom ñëpp bëgg kenn ku ci ne teg loxo nga àndandoo ak ñoom gën di liggéey da ngay ñëw jël ñii di leen téyeloo fee ñu gis fi ko mel ni Mambay Diop moom it mu jàpp bàyyiwul dag-dag grand laay liggéey bee tax nekku fi ñooñ nan nga àndandoo doog ñoom ak nan ngay liggéeyandoo ak ñoom. waxante dëgg rek. ak yéene quoi bañ nëbbante maanaam ñun ñëpp bëggante ku mel ni grand laay sama grand ndax parce que bu demee man la fi bàyyi. ak dag-dag ak mambay waxante dëgg ak yéene mbëri. ndax parce que ku si mel ni ambulance yàgg nañ ko préparé cere càq yàgg nañ koo préparé. alaaji gaynde yàgg nañ koo préparé kon armée yàgg nañoo bëree ak moom si cadre armée yàgg na noo moom xëy na ambulance daanoon na ko mu ñëw ni saltel suñu victoire te man damay bëgg ambulance lu mu jàll rek mu leer nañ jàll si leneen bëgguma muy jàll ëllëg ñuy tudd ay victoire am ñu naan ay daanoon na ko daanu ko. kon loolu sababu ngeen bëriwaat ak loolu mooy sababu pour ñu bëriwaat ak moom. pour leeral pour leeral ak combat yu jafe. ak combat yu jafe mooy waral loolu maanaam ñàkk adversaire mun nañoo dikkale loolu tamit mais armée ñun daan nañ ko. mais bëriwaat ak moom yàqu ko ndax parce que fii moom gis nga champion yu mag sax dañuy bëri mois de janvier février ñu bëriwaat. mais entraîné nga lu lu mën a jox population Thiès ñu am yaakaar ne ambulance dafay dem daan armée ñibbisi. waaw bu baax bu baax a baax a baax. pare nga physiquement. physiquement ak. moralement moralement mentalement pare nga pare naa lépp. lépp lépp pare nañ ko si ambulance ak cere càkk ndax parce que làmb ji boo seetloo dafa diire quoi mhm. te ko am jomu entraînement la ko nangu la mi ngi si contact gi mi ngi si box mi ngi dem saal fi mu toll nii danoo toll si ay réglage yu ndaw yoo xam ne doonul loo xam ne ay contact la wala neneen ay exercice ndaw la ay rapidité déplacement si yooyu leen toll mais pare na si lépp. si lépp ci lépp daal pour bëri pour affronter bu combat bi doonoon suba suba suba. dañuy daan bu soobee yàlla ndax parce que danoo pare si lépp physiquement moralement mentalement. mais yan adjoint nga nekk Dolphy. maa ngi fekk dag dag maa fekk. Pa Mambay maa ngi fekk Grand Laye ndax parce ñun ñëpp benn lan. ak collège collège ngeen def waaw collège lan def ak ñeneen ñuy jógee Mbawo ngeen di jóge ba Njaxate tey day ñëw joxe ay décisam ay ñoom ñëpp daal dañuy ñëw di ay Ousseynou Seck Pape Mbaye ñëpp da ngeen di ñëw di xel ndax parce que làmb xës ngeen ko bëgg boo leen gisee sax mbër mi xaw a def nii rek da ngeen di commencé mer ay ñoom Njaga Gay ay ñoom naateek ñëpp mortalaak ñëpp dañuy bàyyi seen yitte ay amaat di bàyyi seen yitte di fi ñëw guddeeg bëccëg suba ngoon fajar sax da gis ma daal yeewu fajar ñëw fii di entraîné barke Serigne Saliou am ñu yeewu fajar julli ñëw di seetaan ci entraînement huit heures jot ñu wàcc ñu fi dem liggéey kon loolu ñun bëgg leen ko de léegi nag ma li may lancé si Matar mooy. mun àggee mu may mu mu wane jom ak fulla ndax xam ne day ñëw am day ñëw entraînement waxuma la ngoon ndax ngoon ñu mën a ñëw bari nan mais suba gi ñii ñëw entraînement rek mu xool si ñooñu dëggal boppam ndax parce que li mu entraîné barki yàlla du moroomu armée am na doole am na physique am na contact am na xeex bi. amul lenn te bëre kenn du ko jàngal loo gis rek ci mbër di ko am di ko préparer combat rek Mara préparé na ko normal. kon daal mën nañoo xaar làmb ju neex. mën nañoo xaar làmb ju neex te man it gis naa armée. fowul tamit ndax parce que du ma jël sama mbër rek taf à côté muy bëre sama adversaire ma war ko waxal lu ñaaw li nekk ci moom laa wax. gis naa ko entraîné na war a la mu war a entraîné mel na na mu war a mel te loolu mooy combat ñaar adversaire yi pare ñu ñëw taxaw ndax parce que bëgguma tamit sama mbër di daan beneen mbër ñu naan pare wala ki nangam damay bëgg mbër mi may daan mu pare may may xam ne man am naa champion parce que champion dëgg mbër dëgg balaa daan balaa daan balaa doon champion day daan champion te champion pare ngay war a mën a daan bëgguma di daan nit ñu naan parewul te bëgguma tamit sama mbër di daan nit ñu naan mbër moom parewul damay bëgg al tout le temps mu doon ñaar adversaire yi pare combat bu neex man séntu naa ko si combat boobu. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi comme niñ leen ko waxee woon rek ah, bu ñu bàyyi ba tey ah, ni fi ay dara nekke noonu la fi nekkandoo ak ki nga xamante ni moom mooy dag-dag xam naa ne du ñàkk ñi jox dag-dag oh, mu sànni ci kaar parce que am na yeneen i problème yoo xamante ni dañu am ay combat ci jour bi wala ci bu ne suba la ci combat si di jaxate yi muy ay champion yu mag yoo nga xam ne comme ni ñu ko waxee ñii ngi bëree ci sëñ Cheikh Niang mais ki nga xamante ne mooy booy Serif Lo dañuy waxtaan ak ki nga xamante ne mooy dara comme euh, waxtaan ak dag Dak comme ça mu man ñoo expliquer nan la préparé moom booy Serif Lo ay dara moo féete woon ci côté ambulance moom dinañu mën a wax nan la préparé booy Serif Lo ak Sall. waaw salaamaaleykum di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar